Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. yi ñu ngi leen di nuyu di am mbégte di kontaan contentement di leen nuyu bu baax a baax di leen siyaar di leen déwéniti di leen baalu ak di leen balaax ñaan yàlla boole ñu baal ah, koor gi ñu jóge yàlla may ñu ñu fekkee war at yu bari maa ngi seet si ah, benn champion bu ñuy wax Malaw Seras ñëpp a ko xam ci làmb ji mu nekk Pikine mu nekk doom Pikine ma ñëw fekk si ko ba fii mu laaxatu parce que dafa laaxatu ma ñëw loxati si ko fii ci àllum lakru teewoon pël bi en tout cas moom laa ñëw seet si tey fas yéene waxtaan ak moom lu yaatoo yaatu ñu doon koo xamante ne géej nañ koo gis euh, moom Malaw Seras salaamaaleykum Malaw. waaw sëñ Amar maa lay siyaar di la jox sa wàccuwaay di la baalu àq si weer wi ñu jógee di la ko ñaanal yàlla def nañ yëpp. waaw monde entier ñoo leen di baal aax di leen baal aax waaw di la wax nag tey waaw seet si nga moom. maa ngi maa ngi dama la dama la dama la dama la dama la wër ba gis la quoi. waaw dama wër ba gis la moom <laughs> waaw ndax moom loolu moom yaakaar naa bu dee internet yi nag yaakaar naa sax muus musee génn est-ce que muus naa see génn sax xëy na yaay sama premier interview sax ak li may nekk nekk am yoo xam ne moom man sawar ma si moo la du ma si dugg mais yow moom ni ku baax nga dama la estimé dib escaf moo tax na nga xam ni ku baax nga. la jàll sama xarit la sama lépp la. bilaay looloo tax ma ba ma woowee rek après tegu ma si baat sax ma ma garaawul. alors Malaw fan la nekk Malaw dafa bàyyi làmb Malaw nu mu demee noonu Malaw lu mu demee noonu ba kenn gisatu la fenn kenn déggatu la fenn lu xew. daal mu ngi toog du xom boobu ba léegi boo xool ba muy mujj laa mujjee bëreel deux mille seize deux mille dix sept ah ay trois ans ama daan di wax sama combat ma ak Boy Baol mu taxaw benn promoteur teguñ ko bu ñuy wax saw xar yàlla def si diggante bi moom benn problème mu ndaw xëy na génn dem si nekk si problème ba génn si waxatu si waxu làmb ji loolu jeex mais boobu ba mooy toog di xaar <laughs> maa ngi entraîné nag quoi maa def li mu war a def yëpp léeg-léeg moom Laat Ndiaye promoteur dama daana mu woo wala mu woo ko ñuy waxtaan ni ku baax la ndax moom ba ñu xamante dipp xale daral ak Pape Diagne Seras di leen gërëm ñoom ñëpp waaw mais maa ngi toog boobu ba léegi di entraîné nag <laughs> Malaw moom mënut a bàyyi tànk moo <laughs> gisatuñ la ci actualité làmb gisatuñ nga feeñ fenn xam nga duñ la gis stade xam nga rare quoi da raar rare ci bépp côté xam nga sax parfois mën ngaa gëj a bëre mais ngay ñëw di gunge si xale yi wala yooyu. non xam nga Malaw moom mbër la waaw da làmb daam am nu muy doxee xëy na am loo xam ne. boo nee ba toll fenn fi da nga xam ne mbiru suñu boroom la man am na foo xam ni toll naa ko si làmb sama tur àgg na ko si làmb da xam naa ne man mbër laa mais xëy na yàlla tuddeewu ko noonu damay nangu ah mais teewul dama bëgg am loo xam ne dama ko bëggoon wane lu ndaw rek bu dee ñaari combat sax wala ñett ñu xam kat mooy maalaw moo tax ma rënkuwaat arrière di entraîner bàyyi ma fi kenn di xaar ñu wax ma combat pour ma bëre mais boobu léegi dama toog rek doxuñu déggu ma dara ma di ma toog xam nga rek ànd ak sama ngor àdduna mu solo nga jógee ci victoire comme ni nga ko waxee yàgg euh, Modja donc normalement war ngaa am benn combat boo xamante ne combat bu doy waar la yaa ngi may wax léegi Boy Baol mais pourquoi euh, Boy Baol rek amul yeneen yoo xamante ne gars yi démarché nañ ko wala yeneen champion. amee mais gars yi xam nga rek man moom laa doon wax ay combat yoo xam ne day xëy na si yeneen mbëri lay tagee waaye tagee si man. Hmm. man moom laa moom am na may taamu rek nu ndax laa moon toll naa si yoo xam ne ah sama tur àgg na si yoo xam ne man àgguma fa sax waaw mais yàlla moo ko dogal kenn mënu si dara kon su ma demee bay bëri ay mujj bañu ma ñeneen ku ñëw damay bëri man lu des sama carrière amul kii laa wala kee laa si boobu si yaakaar ne yow am nga loo gëm wala am nga yaakaar pour daal maalaw dama lay ubbil bunt na ñëwal waaw loolu ak moo fi amul leen amul fi. pratiquement euh, ñi nga xamante ne euh, yaa ñoom a départandoo ñenn ñi. mooy loolu ñu ngi ci yenn sommet yi mais Malaw lan moo xaw a retardé loo tuuti carrière waaw loolu moom yaa ma laaj fa am solo noonu mais àdduna noonu lay doxee quoi ma am na ñu ma bokkoon carrière boo xool sama génération maa ñoom Modou Lo woon ay ñoom Balla Gaye waaw ñoo bëreendoo mbapat ñoo defandoo arène mais xëy na lu yàlla namu si jàmm kenn mënu si dara ay les deux ay Alioune Seye deux am nañ yoo xam ne xëy na sax <laughs> yàlla moo tudd lool quoi seen diggante ne lii mooy am lii mooy suñu borom lépp lu mu namm si jaam yi loolu mooy am man sama carrière nii la ko xëy yàlla tuddee woon waaw def naa la si li nga war a def yëpp mais na nii yàlla tuddee woon damay ànd ànd ngëm yàlla bàyyi wu maa ngi toog fi ma toog di liggéey li ma liggéey am ngëm-ngëm boo xam ne nag daam ñoo xam dañuy topp sama ginnaaw yàlla la tax ndax maalaw <laughs> xëy na am na xale yoo xam ne tey ñoom seen àdduna gëmuñu kenn ku dul maalaw sama njaboot lañu bañ jàppee ba léegi bàyyiwuñu da tey mun naa toog sax deux ans trois ans suma ma bëree su ma bëree woon tey da nga ne kii du maalaw ndax ñu koy mu waaw ko defal sama diggante nit ñi waaw waa benn baraag di waa daral di waa Pikine waaw man xam nga adduna bi moom booy xool dama am si sax noonu waaw ndax ñëpp rek dund ñoom jaamu laay dund ak mais bu laamu jotee damay laamu bu jeexee jeex na. mais Malaw nu mu demee noonu da ngay da jàpp ni euh, yàllaa ko dogal noonu est-ce que aussi Malaw jël na atome yëpp c'est-à-dire wàllum entraînement wàllum nekk professionnel ci wàllum làmb ji liggaay def nga def ko parce que comme ni nga ko waxee am nga tur am nga mbooloo liggéey di wër promoteur li muy wër mooy mbooloo ak tur yàlla may na la ko mais li ci des yenn combat yi nga ñàkk lan moo la ko war a loo nga foog ne du du ci yow boo xoolee wala. waaw loolu ba léegi bu naan nangul benn côté bi ndax àdduna noonu lay doxee. léeg-léeg xëy na sa doxalin mun na am lu mu nga see juum rek xëy na am am nu mu demee waaw loo gis rek mais li njëkk rek mooy maanaam loo gis rek mu ant day fekk suñu borom antu si xëy na nii la ko war la war a tëralee la ko yàlla di tëralee waaw man daal moom gis naa ko sama làmb ndax man ba may départ làmb man contact laa gënoon bëgg sama àdduna xam woon leen contact dem géej entraînement masse kanam soo man yooyu laa doon dund diin man sama benn grand <laughs> Omar Fall maa ngi koy nuyu ni ku baax waaw Omar Fall boobu ma seen maa ngi koy ñaanal jàmm ju bëree bëree bëri daana ma wax 2010 sama maa dugg si gaal ba mu daanee sente la ma dafa ñëw ba sama kër na maa la mun a mun a ma yokk jot na musculation boobu musculation lu da ngay sonn ndax am na boobu benn sonn boo xam boo fa tollee gars bu ñu nekkee luur sa kaw da ngay am problème boobu bu ma ko jamono bu ma koy wax gëm naa quoi ndax sama grand la dund mais kon man li ma gëmoon man nit mun toll si àdduna su ma jàppee contact da ngay mel ni xale si man man loolu laa gëmoon quoi di ko doxee di ko doxee mais ba ma demee ba dugg garaa bi si laa commencé gis yooyu mu doon wax gis faa yooyu mu doon wax teewul gëmul musculation jàll booy xool boo may bëree waaw boo may bëree gaal njaay moo ma yor presque benn deux mois la ma yor rek ba ma jàppee gaal njaay sama loxo kese laa ko daanee. daa téye ngeen boobu bu may bëri ay séntu rek yëpp boobu jàlloo ma yor waaw mais xëy na diggante bi mu dëkkoon benn baraag daan ñibbi sama kër yaay benn baraag ak escaf sore woon noonu sax moo tax benn essence ma bàyyi woon noonu ba ni ma ñëwaatee Pikine waaw fekk waaw Pikine xam nga Pikine man moom Pikine laa juddoo Pikine laa yaroo Pikine laa màggee mais yëmbal ak benn baraag sama yaay dafa ma defal loo xam ne tey su ma demee ba ñu naan maaloo biir yëmbal ak benn baraag dama naan meer Sow la maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana firdawsi waaw mook sama yaay meen jaaya yaay tafa yàlla na a xare àjjana firdawsi ñaari yaay waaw yu baax lañ yàlla na yàlla defal fi ñu nekk jàmm waaw xare la àjjana firdawsi waaw. alors Malaw ñu gis la euh, pikin ku xamul Malaw dana ne biir Pikine nga dëkk. ah ku xamul maalaw dana ne donte ne benn la benn baraag yooyu yëpp benn la mais ku xamul maalaw man personnellement dama foog ne Kër Fàllaay sax euh, foofu nga dëkk lu indi relation boobu. <laughs> man biir Pikine laa judo fa laa <laughs> sama yaay sax Pikine la juddoo Pikine la dëgg xuru naar fa laa juddoo <laughs> ñu xam Malaw nañ Malaw biir Pikine la juddoo mais Malaw écurie Falaye ba mu fi nekk sam benn grand bu ñuy wax Siré Seras waaw moog Balla mu musa am combat Balla Gaye 1 moo koy yóbbu fekk si si yu bari ma si doon topp ba di dem écurie booy xool Siré Seras ak see see Moudawa si laa njëkk a tuur Faalaay ñëw dugg fa contact zil nekk grand bu baax contact ak man di kaf ak man naa ma del ñëw boobu contact ay géej laa xamoon si laa commencé di leen diin parce que Balla Gaye 1 nag moo gën a yokk sama mbër ndax man fu mu mës jëm moom laa doon àndal si làmb bi mujj Balla Gaye avant moo demee nii boobu booy xool moom laa ëpp lu ma àndal. say làmb ak si entraînement lépp moom laa defal ba ni ma ñëwee suudawu écurie Fara sama la ñëw téye ma taf ma si kawam waaw Amady rakam ñëw moom it taf sama kaw jox grand yëpp cër écurie Fara daal benn écurie la woon boo xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñu fa nekk ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp amuñ benn xaar yàlla ndax bu ñuy bu ñuy bëri ñëpp ku si nekk rek da xool si kanamu nit ki da xam ne kii ndam la yéen a mën te loolu rek moo solo si àdduna ñu fa nekkoon. loolu lañ doon dund amuñu benn xaar ma yàlla kenn ndax àdduna loolu rek laamu day jeex après bu laamu jeexee ñoo si des ak suñu njaboot kon na lépp di rafet rek àdduna noonu lay doxee. yaa ko wax léegi écurie Fallaye mais mën naa gën a yaatal ba ne Pikine Pikine demoon ngeen ba am benn force boo xamante ne mën naa wax yow mën naa citer Fallaye di numéro 2 mais mën naa citer aussi ñi nga xamante ñoom ñooy seen ay rakk ama euh, Boy ñaa ngeen nekk benn Pikine boo xamante ne coow làmb dañ ko téye woon. ah ngeen dem ba benn moment mën nañoo wax Pikine mu am ay clan lu xew. waaw Pikine moom cent la woon Pikine bu ma si déggee cent pour cent laa xam ne Pikine ko am na leneen luñ ciy laa laamee waaw ndax bu ñu waxee dëgg dañ neex yàlla rek Pikine xàccandoo lañ xamoon dóorandoo Eumeu Sène mooy magu xale yi Eumeu Sène Ama Boy Niang am na yoo xam ne dañ koy def yàlla tax. ndax am loo xam bu ñu koy wax si tere te jëfewuñ ko mook zéro yam ñoom pour ñu contact seen biir problème la kon jàppalante bi des na ama seen ba mu si toll dëgg-dëgg di si nekk amul écrit falaay amul écrit Pape Diop fépp lay dugg di contact kon loolu ñu doon booloo di doon benn di xàccandoo di dóorandoo man loolu laa xamoon muy sang bi muy deret bi ndax Pikine mag ñu fi nekkoon sax deret koo si laal deretam deret ak keneen yëngu loolu lañ doon dund kon na Eumeu Sène ambaat xale yi boole leen xam ne ñoom ñëpp benn lañu ñuy xàccandoo di dóorandoo bu ñu xàccandoowee bilaay lu ñu jëriñoo moom ndax at moo amul solo ñu ñëpp benn lañu ñu jëli suñu mag Tyson jëli suñu mag Baboy 100 pour cent bu mag Tyson suñu mag Tyson nekk fa ah ah Baboy nekk fa tamit dañuy wax la Zil Balla nekk fa 100 pour cent bu des na mag ñee fi suñu papa Pape Diop a ngi fi suñu papa Dégol a ngi fi ay père Bawa Diallo grand Bawa Wade Pikine billaahi wallaahi buñ dajaloo doon benn dañuy jëli jëriñu moom waaw mais buñ naxante waa Pikine nañ leen wax lu ñu bëgg ñoom ñu def ko ànd doon benn waaw Eumeu Sène moom xam na li ma koy wax bu baax ndax xam na yàgg naa ñu wekk di fàllaay di contact ak ñun yàgg naa ak man du benn yoon du ñaar yoon ñuy entraîné kon loolu la moo ko war a dindi dara waru ko dindi si àdduna ñëpp benn lañu nañ ànd doon benn bolok li ñuy wuti ñoo ko bokk àdduna du neex ba ñu bëri ci biir kon ñu ñoo des nañ la ko rafetal jëli ji ko. mais Fall euh, euh, su ma la déggee bu baax euh, Malaw mais loolu est-ce que problème bi aussi du du du gën a yaatu bu fekkoon léegi clan yi tey mën nañoo wax ni waa kër Balla Gaye yi waa kër Double Less yi yéen déjà est-ce que bokkul si li xaw a tas seen équipe c'est-à-dire bu ñu nee Ama Baldé day jàppale waa kër Balla Gaye yi te Balla Gaye war a bëri ku mel ni Eumeu yooyu est-ce que du indi problème Boy Niang war a daje ku mel ni Sa Thiès yooyu noonu est-ce que du doolu moom mooy tax seen cent pour cent seen cent bi sax deret bi. non yooyu gars yooyu wax la rek man de pour man yooyu man gëw moo ko ndax ma xam na laa gëm man mooy li ma intéressé mooy am na benn ngëm-ngëm boo xam mooy si man du Balla Gaye moo koy dindi si man ah du booy Niang du Ama du du du Eumeu Sène kooku sama ngëm-ngëm la li may dund ak ñoom ñëpp. amul kenn kenn kon koo xam ne rek naa si gis kenn di sëgg ndax loolu man la maa koy dund mais keneen ku dund leen yow yow loolu la la intéressé man xam lu may waxee pour ñu jéem a booloo defar waaw man xam naa ne man Amadou noonu ma Sène mun da nekk noonu Eumeu Sène ndax ba premier combat am ak Balla moom ba mu daanee Balla Gaye ama zible na ba essence lu mag kon mënul nekk noonu waa xëy na nag am na leen moo xam daf na ba dux seen diggante ñoom ñaar man de sama yoon nekku si du ma si wax wax bu rafet si wax du ma si wax leen loo xam ne wax la bu ñaaw la waaw ak xam naa ne daal li wët a wóor mooy pikin lañu nañ gëm ne pikin lañu buñ nekk gëmee ne pikin lañu dañ koy jëri ji loolu moo si am importance laa ma xam la moo si am importance entraîné gëm sa bopp xam lu lay may nga dem jëri ji ko man léegi lépp ay détails la waaw détail la ndax làmb boo si entraîné wul da ngay sonn sama trak yi nekk sama ginnaaw chaque jour benn wax bi laa leen di wax naa li ñu perte ah jëli ji leen waaw ndax xam lu leen koy may entraîné na rey sa boobu xam fi ngay teg sa tànk làmbu làmbu làmbu làmbu làmbu lan la làmbu fu mujj. mais est-ce que yéen Balla Gaye récupéré wul genn wàll Pikine bi su ma waxee loolu Baboye mu ngi ci wetu Balla Gaye yow mi nga xamante ne yow yaay maalaw gis nañu Balla Gaye mu ngi ak Baboy Baboy du laaloo taal pratiquement ak euh, ki nga xamante ne moom mooy Eumeu Sène est-ce que dox nga ci yow miy wax loolu Eumeu Sène nañoo magal gaay mais est-ce en tant que maalaw nga xamante am na jàmm ak ñëpp dox nga ci. Eumeu Sène moom wax bu koy wax magal si diggante boo ñaak Ama laa koy wax mais ñee ñoo ko mag ñee bu defar am ñu ñooy jëli ñëw defar man li ma si war a wax nii nga may nga ma siy laaj ni ma siy wax laa ray wax fu ñu fexee doon benn defaroo. mais comme su nekk seen i problème seen digg damay ñaan yàlla bu nekk fekkee problème moo nekk seen diggante yàlla na ko yàlla saafara si barke weeru koor bi ñu génn ñoom ñëpp ñu am jàmm nekk benn ñu fexee xam ne Pikine benn la Pikine sang la Pikine la Pikine boo musaa laal kenn da laal keneen loolu lañ gëmoon nañ ko gëm ànd ak ñu ñëpp xam nga ni tey mënuñoo wax ne dañoo bëggante ba pare ah da làmb rek la ñuy gisante coow lee fi nekk nii rek waaw bu làmb amee nag ku si nekk da ngay yéene sa moroom mu am dam mais nay gën a yokku waaw ndax loolu mooy ndam li ndax tey muy àndandoo xàccandoo dañuy dóorandoo dañ koy jëli ji Pikine li mu wëri ji am ko daa fekk daa lu des barke Seexul Xadim suñu àndee doon booloo rek lu ñu jëli ji ñoo moom waaw. ci biir loolu euh, ngeen di ngeen sa rakk comme niñ koy waxee Ama mu nekk koo xamante ne kenn la ci yaw mu jël euh, combat royal doon ko waajal far coronavirus bi ñëw ci mu jël ki nga xamante ne moom mooy Modou Lo waaw gis nga waaw ñu pré xam nga rek àdduna moom feebar bi nii sax feewar bi nii ñoo ngi siy ñaanal suñu mbokk jullit yëpp mu si ak àdduna bi yëpp sax waaw mu jóge fi daal bokk nekk mën a nekkaa sa liggéey waaw ñoo ngi koy ñaanal nag ñoo ngi koy jaale waajuram bu góor boobu Modou Lo waaw muy góoraloo papa ju baax la ñoo ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana si weeru koor bi mu génn weeru sell am nañ si moom yaakaar ni ku baax la waaw àdduna man moom su ma seyoon mooy loolu ndax woo naa sa xaarim nga jege expliqué ko jaare ko waaw ndax am na àdduna moom solo quoi ñun ñëpp benn lañu ku si nekk rek xëy na tey boo wàññilewul tey suba di nga wàññile ko waaw de dee moom leneen la dee ak làmb moom sax waaw moom bu dul dara sax si biir xolam moom ni ku baax la waaw da àdduna amul solo lépp ay jeex après ñu ñooy nekkaat waaw dañuy bëri mu jeex benn taaku saan rek waaw. mënuloo génn Pikine ak ni mu def Pikine ravage bi mu def Pikine ngeen jëlaat Modou Lo. non Modou moom waaw laamu la rek man de <laughs> dama jàpp ñoom ñaar dañoo war daje daje xëy na coow day bëri wax ji day bëri mais xëy na benn taakusaan la rek boo xam ne dañ leen di boole xëy bu génn duggee si biir géew bu ab génn seen diggante waaw lépp lépp léppay leer rek amul benn ngaañ. mais Malaw Saraka Ama ak ni nga ko protégé ni nga ni nga nekkee ci wetam ni nga ko mooy loolu ni nga ko ëmbee muy jël Modou musoo koo wax musoo ko ci hésité loo. non kooku su ma ko gisee sax damay bàyyi moom <laughs> damaa war a bàyyi de <laughs> ah luy loolu roi xam nga luy roi yow roi day caaxaan. non roi bi la wala xaalis bi la wala lan la non man combat bi laay wax Modou Lo mu danger ma wax. non ah moom xam nga yow <laughs> ko tax a jóg xanaa pour man non loolu lay demee sax ndax nit kay yaakaar naa bu jëlee nit mu yor ji roi Hmm. même bu leen xaalis bi boole tamit yaakaar naa li ngeen di xëccoo ku si nekk si bëgg a jot. confiance bi ngay doxee bi ngay bi ngay waxee ci Ama man moom a yëm Modou danger bi Modou Lo danger. non Modou Lo moom xam nga champion moom di koy renteex xam naa ko bu baax ak maa xam sax <laughs> xamante nañ bu baax a baax billaay walaay bu fekkee dëgg na yàlla rek champion la mbër la mbër mën ko nii si yombul bu fekkee dëgg na ndax li gën a jafe la moom muy digg géew am na mbëri yu bari yu bëri fii coow fi nekk rek mais mënuñu digg géew da moo daa mun digg géew waaw da respecté li muy def bëgg ko day entraîné loolu lañ ko see gëm dañ ko koy jox ba mu jeex tàkk. kon lan yow nga bi ñuy bi ñuy waxtaanee combat nga d' accord te yéen ñu waxtaanee woon Tapha Tine. non lu tax mu dama d' accord. ah booy bu ràngee baag si ku ràngee baag si. ku yow Ama Baldé mën na mën na yëngal Modou Lo mais kuranga baag si laa wa kuranga baag si. am dafa daan gars de moom neexul neexul waaye yoon moom daa xat si moom mu xuus jàll. <laughs> amul combat bu yomb lañ fekkee dëgg yàlla rek premier combat ba dernier bu yomb lépp koy bëre si jom fula la xëy na looloo tax ñu gis ne kii mun na bëre ak Modou Lo ñu jox te mun na daan Modou Lo. loolu. amul lenn loo xam ne sax dama ko siy bu neexee yàlla yonent bi ndax xam na moo tax nit moom ah xëy na ñoom dañuy xam a pare xëy na ñoom lu nekk si ama ah, dëgg dëgg dëgg xamaguñ ko mais après lañ koy comprendre yàlla nañ yàlla defal jàmm la defal ñu sutura mais ñu ñëpp ba bis ba ñaanal yàlla ni ni ko laa mi nga xam moo tëgg combat bi yàlla ko génne ko fi mu nekk ba mu mun a àggali bis bi ndax bis bi ñëpp ko soxla bu dul dara sax Modou Lo Ama ah, la affiche la waaw adduna bi moom boo xamee boo xamee échange nii booy xool à part Balla Gaye Modou Lo Modou Lo Ama ah, nga mun a wax échange nii waaw mu gars yi mun a xam ne carrément ñu ngi dund làmb waaw kon loolu nag bu ñu ko amee dañ koy ñaanal yàlla nekk na ko yàlla jëlee ko foofu mu nekk boo mun a àggaliwaat li mu def nii waaw ku si nekk mun gis sa daal adduna noonu la. waaw man parewuma ci mu euh, ci Ama de Ama yow mi nekk ak moom gars yi day contact sonn combat bi du yàgg lan moo tax muy parti euh, muy profité combat yi. yooyu yëpp garaaw <laughs> gars yi moom xam nga la mooy problème bi ah làmb moog loolu ñooy ànd <laughs> làmb booy booy bëri di daanu buy di daan buy daan dañuy wax booy bëri di daanu dañuy wax faay musul ñàkk si làmb waaw loolu moo si am solo quoi làmb moom noo daanee baax na ah nit daanee ne. lamb moom nit daa ànd façon. jéem ma jaaxal mais parfois yéen yéen ñiy wër ama parfois mafia boobu noonu xam nga mais fit boobu ngeen koy yokk mais saa waay Modou Lo man Modou Lo Modou Lo saa waay Lo beneen dimension la. non mooy li ma lay wax rek sànq si biir wax danaa benn bopp la ñun xam nga mooy problème bi ñun ñu jógee rek jóg nañu xam lu ñuy gis ndam ndax ñun ñëpp dañuy àndandoo yéenandoo ndam ndax yàlla rek la ñuy ñaanal di gis ndam quoi nit tamit boo ànd ak moom yaakaar naa la nga war a ànd ak moom waaw boo leen àndee doon mbooloo dama yaakaar ne bu xol yëpp doone benn waxuma ay sëriñ ak yooyu de à part sëriñ daa am leneen lu jiitu muy encourage bi ñooñu bi seen xol seddee barki Seexul Xadim loo jël yi mu nga ko am. Ama ban saaru rakk la. noonu ni ku baax la ni ku yaru la ni ku joxay magam cër bu dul dara sax xolam rafet na waaw nit xol bu xol la moo si am solo daa amul xolu kiñaan si biir xolam moo tax lu muy wër ji mun na ko am waaw gis nit nag moom ah, lépp loo gis si àdduna rek ah boo ko yaakamti bu waree jot day jot. waaw xëy na wax coow lu bëri woon na wax ji bëri woon na dégg na lu ne mais xëy na loolu yëpp jeex na tey bu ñu waree bëre dañuy bëre rek mu jeex bu subaa ñu nekkaat si leneen ndax àdduna noonu rek lay doxee ñoom mënuñoo nekk noonu moo tax yenn supporters yi sax moo tax dañuy war a def ndànk quoi di gën a am Modou Lo dañuy bëre rek muy waa Pikine muy waa Parcelles ah jarul noonu jarul reyante xam la moo leen di sagal mbër mi mbër mi moo si am solo quoi mbër mi daal mooy lépp mbër mi moo lay mun a daanal seen xolu sedd mais jarul xuloo jarul xeex lépp. soxla ngeen ndam li de waa Pikine soxla nañu ndam ci am ci mu ci Modou Lo ni mu def Pikine jóge ci Eumeu Sène barki Demba Ndiaye sa waay soxla ngeen ndam li waxal wa ci. <laughs> waaw sox ndam li moom <laughs> suñu la waxee soxla wu ñu ko xanaa ay waxu leer la non ndam li moom soxla nañ ko ndam li kuy nekk Pikine waa tamit waaw ak ñeneen dëkk yi sax am na ñu ko soxla yu bari bari Seexul Xadiim waaw ndax xale la boo xam ne xëy na bëri naa ak ay moromam yëpp waaw xëy na war a bëri jur waa ren kon nag moo war a def mu góorgóorlu rek waaw takk laxasaay xam ne waa na mu ko daan defee amul benn waaj takk jóg rek ñun loolu lañ xam. entraînement rey sa bopp suñ demee yàlla defal ñu dam lu sedd guy ndax àdduna noonu lay doxee. lan ngay wax sa rakk Boy Niang ban message nga koy lan ban message. ah Boy Niang moom champion la moom xam na xam naa xam na lu ma ko yéene ak li ma ko yéene moom xam na ko waaw dama koy ñaanal yàlla defal ko jàmm. defal ko mucc ci wànd ba lépp lu muy wut si carrière am yàlla def ko mu àggale ko si mu rafet waaw moom borom baax la borom yërmande la di ko ñaanal jàmm ju bari di ñaan ama seen mucc ak xéwal waaw maa ngi gërëm sama benn grand nag boo xam ne kooku mooy gërëm moom xam naa dinaa jël temps tuuti waaw sama benn grand bu ñëw Abdou Ndiaye waaw waaw ñu koy Abdou Ndiaye waaw mooy dëkk Yoof waaw presque moom foofu Jolof waaw maa ngi koy ñaanal jàmm di ko ñaanal bu bari ndax grand boobu xëy na su ma toogee bu heure bi demee mu ne yàlla ak moom la waaw ndax ni koo xam la daf may jàppale rek da yàlla tax rek moo tax mooy jàppale. mais laa muy moom instant dafa taxaw lan moo ko waral euh, selon yow lan moo ko waral ñu bëree ngi wax mbër yi la ñii ngi naan promoteur yi la ñii naan CNG bi la ñii ngi naan sponsor yi la. man de CNG la CNG bi la pour man. CNG. waaw mais nit boo nekkee si mbir 26 ans def nga yëpp CNG amul fu mënut a yóbbu laamu yóbbu na laamu fi mu war a yóbbu laamu yëpp waaw dañ may ñeneen ñoo xam ne am nañ xam-xam ñoom comme ñoom ñu yokk seen xam-xam xoolal yóbbu laamu feneen mais ñoom kenn du leen wax defuñ dara def nañ li ñu a def yëpp mais dañu war a abal gars ñi def ndax àdduna noonu lay doxee waaw nit mënul toog si benn mbir rek waaw comme dictateur moom mënul nekk waaw nit moom bu toogee si benn mbir ah doxal doxal doxal doxal day bàyyi keneen développé bokk yi mu nekk loo am am solo euh, ñu seet si ko tey moom ki nga xamante ne moom mooy Malaw mu nekk ko xamante ne nañ ko gis mais Malaw euh, kenn ku bokk si yéen tamit ñu naan ko Jules Baldé junior ndog-ndog dal ko. waaw suñu rakk la Jules Baldé junior Aboulaye baax waaye ni ko am yar si cër doomu aadama xëy na dañ koy ñaanal rek dal ko yàlla na ko yàlla teggi yàlla mi nga xam moo ko teg dem moo koy teggi yàlla na ko yàlla teggi waaw yàlla defal ko jàmm foofu mu nekk. waaw ndax ndax booy xool ah, ah boo suñu beneen booy bi tamit jibiyaata suñu booy bi ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàlla defal ko moom tam ba jóg booy Malika dem ñoo ngi koy ñaanal waaw ñoo ngi ko dóor bal fan yi waaw ñoo yàlla gars yi dimbali ko bu ñu ko génneel bal boobu mun a nekkaat si ay activité bi ndax dafa met tamit bal bu nekk si yaram boobu ba léegi ah ñu taxaw di ko seeraan te dégg naa chaque deux jours rek ah day fay douze mille francs xam loolu met na si xale boo xam ne ah mbëru ay combat cent mille cent mille ngay bëre waaw da yooyu yëpp xam ne CNG am na si responsabilité waaw yooyu yëpp moo dox ndax mbër tamit pour lan la assurance bi ñuy fay ah kon lan lay jariñ mu suñu borom mi la ko teg nag yàlla na ko yàlla teggil yàlla am na ko mun na ko yàlla na ko yàlla defal alors je parle sur euh, bon benn la ah Fallaye Balde waaw mais Fallaye Guèye waaw waaw sama waay la xam nga rek man dama ko namm Fallaye. waaw <laughs> ah, Fallaye lonko maa ngi koy ziar wala États-Unis yoo yoo njool di ziar Saint sama lonko di ziar Boy Djiné ah Jaguar Jaguar waaw sama gars yi Xaarim Sarr waaw écrit Fallaye bi daal xool maa ngi di gërëm ñoom ñëpp di leen sant di leen ñaanal jam di leen ñaanal heure bi déwén yàlla na fekk gars bi mu nekk écrit Fallaye nekk écrit Pikine nekk biir Pikine si kàttanu yàlla yàlla am na mun na ko am na ko yàlla nañ ko yàlla yàlla defal yàlla la ñuy ñaan da yàlla am na ko de mën na ko ko yàlla defal waaw si barke xanaa a terminer en beauté ak euh, Malaw alors Malaw tey bi lan lay doon hmm, lan ngay wax promoteurs yi déjà parce que war ngaa dellu si yaag la Pythagore non non man su ma seyoon moom ah xanaa moom booy bool sax man moom moo seyoon promoteur bu tëggaat tamit da ngay tëggaat sama diggante ak moom quoi ndax moom maam moom bu neex quoi mais booy bool di nga xeex bay bëgg a mu tax loolu problème bi nag. xaw ma xaw ma ñaari booy rek ma daan ma daan benn booy. daam na loo xam ne dama ko war a qualifié su ma ko deful sax day am nu mu demee ndax adduna bi temps bi dafa metti ndax booy bu rek ay xaaree ñu lay daane da ngay dégg ñu naan kii ah. mag la quoi xaalis rek lay wut si ji da fekk ni. da fekk ni ñun fekk ni ñun ah nitu jom lañu ay nitu tranga lañu mm. waaw ñun bu ñu jëlee laamu dañ ciy def li ñu am lépp barki seexul xarit suñu borom yoon bi jeexagul. mu nekk ngi si <laughs> affaire boo ko ñemee rek di nga àgg fi nga jëm. Ah, mu nekk euh, Malaw nekk koo xamante ne champion la mais gëj nañu koo gis donc loolu tax ma ko koo lijjanti indil leen ko waxtaan bi yaakaar naa yaatu na ànd nag dal ànd nag yarak ak teggin xam nga donc wax na lu am am solo li mu wax lépp mën mënees nañ ko jàngat donc ñu koy remercier di ko ñaanal rek ndam di ko ñaanal yokkute moom it ci bépp fànn dinañ jox dig daje rek très ci beneen numéro peace.